bi nga xam ne moom lañ baaxu àdd ak yéen ci diiru weeru koor bi mu mel ne suñu bind ba ñu mujjoon a nafar ak yéen nafaroon nañ ak yéen suratu sajda saar woo xam ne borom bi subhaanahu wa melal na ci jullit ñi waaye fàttali leen seenu payoor ëllëg yowmal qiyaam waaye tamit melal ci ñi nga xam ne ñooy musrikuuna yi fàttali tamit seenu payoor ëllëg yowmal qiyaam tey suñu bind ñu war a tàmbalee ci suuratul ahzab di saar boo xam ne mi ngi wàccee Medina Medinatul Munawwara ci la wàcce nekk saar boo xam ne boo déggee tur bi rekk di nga xam ne nettali na histoire rawatina histoire bu siiw boobu di xaswatu xandax xam ngeen ne ni ñu ni ngeen xamee xaswatu badrin di xareb jullit ñu xare bu tiis bu metti bu tar bu amoon ci biir weeru koor wi ci fukki fan yi ak juróom ñaar di wàccug alquran xam ngeen ne ni la amee yeneen xaswa yoo xam ne am na xaswa yooyu nag boo demee ci Seydi Haaji Maalik Si radiallahu taala anhu moom tënk na ko sax ca xilaas dahab ba waaye boo demee ca nuurul yaqiin da ko ca fekk tamit boo demee ci muarrixuuna yi ci seeni téere da nga ko ca fekk boo demee ci Sëriñ Musaa Ka am na ci fi ko tënk kon daal saar la woo xam ne wax na melo kaafiruuna yi te mooy way weddi ak munaafiquuna yi ak yenn ci eh, xeeti jëflante yi waaye fàttali ñu tuuti ci xaswatu xàndax eh, aayaat yu njëkk yi nga xam ne moom la ñuy doore xam ngeen ne musrikuuna yi dañ doon wax yonentu bi alayhi salaam ne ko daal na bàyyi seen xëram yi ñuy xas yi ñuy jàpp ñoom ay yàlla na ko bàyyi na ko bàyyi te jàpp njaamuram te topp ka wax ne mooy yàllaam rekk te bàyyi ñoom seeni yàlla borom bi su ne ko nag su bàyyiwul loolu mën naa dem ba ñoom danañ ko tong mbaa ñu génn ko dëkk bi loolu xaw na tiis lool ci ñenn ci jullit ñi waaye ba ci yonent bi aleyhi salaam borom bi subhaanahu wa taala nag ñëwaat ndax moom waxtu wu yéefar yi waxe ak moom rek mooy ñëw orienté ko xamal ko yonente bi aleyhi ne ko nag bul topp mukk way wedd yi ak munafiquuna yi ci liñ lay wax waaye yow daal li ngay topp mooy liñ la wax liñ la defloo rek mooy li nga war a def mooy li ngay def sax moo tax mu ne yaa ayuha nabiyu bismillahi arrahmani irrahim yaa ayuha nabiyu ee yow yonontu bi ittaqillaaha na nga ragal sa boroom wala tutii te bul topp mukk alkaafirina way weddi wal munafiqina ak naafiqi ñu demee ni ka abdullahi ibnu salul abdullahi ibnu ubay salul nekkoon njiitul naafiq yi nekkoon medinatul munawara nga xam ne gis ngeen waram gu rëy mu defoon keroog xaswatu uhud waaye defaat na war gu rëy keroog xaswatu xandax moo tax mu ne ko inna laa nag yàlla kaana nekk na aliman di ab xamaa kon hakiman di aji xereñ ci àtte ay mbiram yépp kon nag watta bi na nga topp maa la nga xam ne yuuxaa def na wax yu mu jëm ci yow muhammad min rabbika mu tukkee ci sa borom ndax ina laa naka yàlla xabiran aji daj kumpa la mooy aji xam la bi maa ci lépp loo xam ne taamaluna yéen a ngi koy jëf wa na nga wakkirlu ala laa ci yàlla wa kafa doy na billaay ci yàlla wakilan ku ñuy wakiirlu gis nga wakiirlu ci yàlla boo demee ci minhajul abidin euh, ca minhajul abidin bu bu imaamu xazali radiallahu taala anhu leeral na ci lu bari ci tawakkul tawakkul yonente bi alei nee na tawakkul mooy sama mbir te sunna mooy sama yoon di wax ne na ngeen di wàkkiirlu ci yàlla xam ngeen ne lépp yàllaa koy def waaye nag dangay ngay ci yàlla soo wakkiirloo ci yàlla nag yàlla subhaanahu wa taala comme doy moo lay defal sa lépp moo tax doon na wax ne na ngeen di wakkiirlu ci yàlla comme ni njanaaw yi di wakkiirloo ndax bu ñuy xëy seeni kër dañuy génn ngir fàggu ji taqdu ximaazan wa taruhu bitaanan ñuy génn dañuy xiif waaye bu ñuy delsi dañuy regg dañuy wakkiirlu ci yàlla gis nga moo tax cheikhul xadim radiallahu anhu bañ ko ne wuti bunti bure dane fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu raadiya xayra alxilmi wa diini am na fu mu wax sax ne in kuntu za asanin aw kuntu za watarin daawtu zal ayni xabla raai wa chiini man day su ma amee benn njàqare wala benn yitte yàlla laa koy diis moo tax wàkkirlu ci yàlla yàlla nee na képp ku ku wàkkirlu ci man danaa la wërsëgal wërsëg woo xam ne wulay bett lay doon wërsëg woo xam ne du du sax yow yaa koy fàggu waaye dana la dikkal ci ak mbetteel wàkkiilu ci yàlla lu am solo la moo tax nag borom bi ne ko wa na ngay wàkkiilu ala ci yàlla wakafaate doy na bi laay ci yàlla wàkkiilan ab wàkkiirlu kaay dafa am ci musrikoon yi koo xam ne daf doon wax yonent bi aleyhi salaam ne ko gëm naa la waaye day jëf-jëf yi naafiq rek bu ko salaam waxee nag mu ne ko ah, man ñaari xol yi ma yàlla jox benn bi gëm naa la ci benn bi nag ah dama ciy topp sama sama samay kii rek ah, sama bànneex li ma ci bëgg yàlla nag subhaanahu wa taala di ko wet ne déedéet defuñu ci benn jëmm ñaari xol moo tax eh, luqmaanul xakim ndeysaan ba ko sangam ba waxee ne ko jël ab gàtt ray ko ne ko boo ko reyee ba fees ko ba noppi andil ma la ca gën wax nañ ne bam ko rendee ba fees ko daf ko andil xol ba ak làmmiñ wa mu joxaat ko beneen gàtt ne ko rey ko fees ko indil ma la ca yées mu indil ko xol ba ak làmmiñ ba mu ne ko déet bee dama la waxoon indil ma la ca gën nga indil ma xol beeg làmmiñ bi bii ma waxaat indil ma li ci yées nga indil ma xol beeg làmmiñ bi mu ne ko waaw ndax làmmiñ ak xol bu ñu baaxee ci nit ñooy li gën ci nit waaye bu ñu yéesee tamit ñooy yées ci doomu aadama moo tax nit bu làmmiñam rafetee lu baax lay wax di ko def nit ku baax a ngoog bu xolom sellee mu ca yéene nit ñi lu baax comme la mu yéene boppam nit ku baax a ngoog waaye nit koo xam ne xol ba baaxut dafa iñaan dafa soxor lu bon la yéene nit ñi làmmiñ wa du ca wax lu baax nit ku yées a ngoog loolu yonentu aleyhi salaam wax na ko ci benn hadis ne ndax duma leen xibaar benn cër bu nekk ci doomu aadama boo xam ne su baaxee léppam baax waaye bu yàqoo it léppam yàqu ñu ne ko lan la mu ne ala wahiya al loolu mooy ab xol xol daal bu baaxee ci nit léppam baax waaye bu yàqoo léppam yàqoo moo tax alquran sax boo koy jàng xol la ci yàlla di njëkk tudd boo tàmbalee sootul baqara ci xol ngay njëkk yam ci ciri doomu aadama moo tax nag borom bi na maa a deful allahu yàlla li rajulul ñeel benn waaye min qalbayni ñaari xol fii jow fi ci cib dënnam umaa jaala defu nag aswaajukum seen soxna alati ya nga xam ne tuzahiruna da ngeen di zihaar min xun na ci ñoom umahaatukum ñu nekk seen yaay comme ñuy wax naan seen jigéen yamale lañ leen ak seen yaay taxul ñu nekk seen yaay léeg-léeg it góor takk jigéen mu taxaw ko taxawaayu yaay ci moom di ko dimbule ci fànn yëpp di ko euh, di ko di ko taxaw ci fànn yëpp di ko dimbule ci fànn yëpp di ko muñal ci fànn yëpp di ko suturaal ci fànn yëpp di ko xeral ci fànn yëpp ba nga xam ne góor googu dana xam ne soxna si taxaw na taxawaayu yaayam ci yow mu ko yow de dangaa mel ne yaay nga doon ci man dëgg la taxaw na taxawaayu yaay waaye taxul nag ñu mën a wax ne yaayam la wama jaala defu nag adexyaakum na ngeen di woowe ab naakum seen doom zaaliku loolu xawlukum seen wax rek la maanaam wama jaala defu adexyaakum ñu ngeen di woowe ab naakum seen doom ñu mën a nekk seen doom maanaam léeg nit Euh, taxaw cew taxawaay boo xam ne danga koy jàppe doom wala sax muy doom joo xam ne dañ ko sànni nga jël ko wala muy doom joo xam ne dañ la ko jox nga yar ko ni màgge ba ni mesure defal ko léppam xataa boo demoon ba bëgg ko ba bëggal ko sa bopp sax ba bëgg koo santale saw sant yooyu yëpp yàlla nee na baax na waaye nag warul àgg ci nga koy santale saw sant warul àgg ci nga bëgg a wax ne sa doom la comme doom ji nga jur ci sa géño ndax dañuy wax ne al wala du wala daani doom ñaar la waladu sulbi wa waladul xalbi doomi ndigg ak doomi xol doomi ndigg ak doomi xol moo tax Cheikhul Xadim radiallahu anhu am na ci mag ñi ñoo xam ne da leen daan jàppe ne yéen wala waladul xalbi ngeen ci man maanaam doomi xol sama xol nangu na leen teg leen place doom loolu nag mën na ne waaye dadul àgg ci li lislaam di bañ mooy nit ki nag nga ñëw moo xam dañ ko sànni woon moo xam da nga ko for moo xam dañ la ko jox nga doomoo ko ba moo sama doomi bopp yi ñoo yam ba xattaa sax ku ci njëkk a faatu ci ñoom ñaar da nga doon sa moroom maanaam ba wax ne sax bu fi bu génnee àddina na ko doon cërale ko ab cër ba bëgg ko sant la santam yàlla ne déedéet wa maa jaala déet mu ngeen di def adhiyaakum ñi ngeen di wooy abnaakum seen abnaakum doom ñu nekk seeni i doom daali ko loo xawlukum seen rek bi afwahikum yoo xam ne seen i gémmiñ lay wallahu yàlla nag yaqulu aji wax la alxaq dëgg gi waxoote moom yax di mooy gindi zabila coon bi kon adduhum na ngeen leen di woowee doom yooya li i ci seen i baay seen santi baay ya jox leen leen ko na ngeen leen askanale seen i baay donte nag dimbala ga ngeen leen di dimbala yar ga ngeen leen di yar donte sax yéen leen dugal néegu góor donte yéen leen jàngal alquran yéen a def lépp ci seen ki loolu lu baax la yàlla dana la ci fay waaye aggul ci nag nga mën a nekk baayam moo tax yàlla ne def lool huwa mu aqsatu moo gën a maandu xindallaay ci yàlla loolu daal mooy li gën a maandu loolu dooy na sëkk nga xool Zayd naari sata nga xam ne alquran li mu benn turu saxaaba la ci tudd aw turam muy Zaydu Zaydu moomu yonent alayhi salaam mayoon na ko mbokka mu ñu wax Saynab bintu Jaxsin dañu bañ a xóotal ci taarix mi mu jël lu bari ci temps bi waaye Zaydu moom yonent bi def ko doomo woon bañ dañ ko daan wax naa ko Zaydu ibnu Muhammad waaye bi aaya ji wàccee nag yàlla subhaanahu wa taala bi mu wàcc aaya ji nag ci lañ ko bàyyi ñu ne kon nañuy wax nag saydu ibnu Harishata saydu moomu nag euh, nga xam ne yonent bi alayhi salaam soxnaam soosu sax suñ boroom yonent bi salaam la ko mujjoon joxaat muy Saynabu nekkoon al-Qurashiyatu moo tax borom bi ne fayn lam ta fayn lam taalamu ndem xam ngeen ñoom ñooñu nga xam ne yéen a leen yor ñoom xale yooyu aabaam seeni baay na ngeen leen askale seeni baay waaw fa in lam taxalamoo ndem xamu leen abaahum seen i baay kon fa ixwaanukum def leen leen ay mbokk fi diini ci diine rek wa mawaalikum ngeen def leen ñoo xam ne yéen a méngoo seen mbir su ko defee nag Sayd ibnu Aïchata ñi nga xam ne daan nañ ko woowe Sayd ibnu Muhammad yàlla subhaanahu wa taala ne kon nañ koy woowe Sayd ibnu Aïchata ndax aay ba mu wàccee waaye nag walaay sa déet aleykum muy nekk ci yéen junaaxun bàkkaar fi ma axtaxtum ci la ngeen juum bii ci moom bu ngeen juumee wooyee ko Sayd ibnu Muhammad fekkee da ngeen a juum yàlla gis nga waxtu nekk ci alquran da ngay gis ne njuumte yàlla daf koy baale moo tax doomu aadama yi faw ñuy ñuy jéggale njuumte doom adama yi ci wax ak jëf ndax gis nga aaya bi walay sa din aleykum muy dal ci seen kaw junaaxun bàkkaar fii ma ca la xam ne aqtatum da ngeen ko juum bi ci moom walakin waaye nag lay doon bàkkaar daal maa mooy la nga xam ne taxammada tay na xulubukum seeni xol wakaana aji nekk la allah moom yàlla xafuran di waa kon rahiman di koo xam ne ku aji am yërmande la annabi yonentu bi nag awla moo gën a yey bil muminal ci way gëm ñi yonentu bi moo ñu moo gën a yey way jullit ñépp seen bopp moo tax yonentu alayhi salaam lislaam sax may na ko mu fekk kenn ci jullit ñi mu ne ko bàyyil sa soxna yépp mu bàyyi yépp mu daal di jël yépp yonentu alayhi salaam la ko yàlla may yonentu alayhi mooy ki yàlla limité wut ci ay soxna yonentu alayhi salaam moom la yàlla may bépp jigéen bu mu gis bu la neexee mu jël ko mu doon soxnaam te aajowul sax bu ko neexee muy def ay seede alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla may mu jël lu ko soob moom la yàlla may mu mën a fekk ay nit jël mu bàyyiloo leen ñëpp jël ñëpp te du ca am bàkkaar ku moom nag boo dajee nit ci ngorowante sax nga ëpp ko doole foqal ni ko lislaam daf ko tere moo jaay ñooyam moo tax yonentu alayhi boo xoolee waxtu wu nekk da nga gis ni ko yàlla tege ci kaw jaam yi moo tax seexul xadim ba mu koy tàgg dana ko wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan daxara wal mislu xattu lan yura walan yura fi siyami mbindeef yàlla bind yëpp yaa ci gën a mat ci jikko ci bind buñ doon xool mbindeef yëpp bëgg a xool sa kem kenn du ko gis daal di wax ne lam yabdu mislal mustafa muhammadin siran wa jahran fil baraya sammadi ku mel na yow mësu fee ñëw te duut fi ñëw ci lu ñu gis ak lu ñu gisul moo tax annabi yonantu bi awlaa moo gën a yey bil muminina ci way gëm ñi min am suñ seen bopp wa aswaaju ak seeni soxna wa aswaajuhu ak wa aswaajuhu ay soxna moom yonantu bi ummahaatuhum seeni yaay lañ yéen jullit ñi moo tax nga dégg buñ tuddee a buñ dégg bu ñuy wax Aïchatu di wax naan suñ yaay Aïcha suñ yaay Umu Salama suñu yaay Sawda suñu yaay Maymuna suñu yaay Seynab euh, bintu Jaxasin suñ yaay Umul Masakin di tudd suñu yaay yooyu moo tax suñ borom dafa ne wa aswaajuhu ay soxnaam ummahaatum seen yaay lañ bu ko defee nag wa ulul arxaami boroomi ruxum yi nit ñi nga xam dañu am mbokko nga xam ne yaa ngi dund ci àddina am nga famille baadum ñen ñi awlaa ñoo gën a yey bi baax leen ci ñen ñi fi kitaabillahi ci xam-xamu yàlla te mooy miraas bu dee nag ki nga xam ne mi ngi dund nag am ay mbokk ak yooyu ay mbokkam ñoo gën a yey ci moom bu fekkente ne wàllu miraas dafa taxaw ñu ko gën a jege moo tax mu ne minal muminina ci way gëm ñi wal muhajirina ak ñi nga xam ñi nga xam ne dañoo gàddaayoon mooy almuhaajir wal ansaar moo tax ma ne ilaa an tafalo lu da ngeen a def rek ilaa awliyaikum ci ñi nga xam ne ñooy seeni kilifa maxarufan njëkk maanaam nag bu fekkente ne nit ki gis nga da ngay dellu ca aay ca ginnaaw ki nga xam ne danga ko koo taf ci sa bopp doomoo ko kooku lislaam may na la waxtu woo demee ba nga xamante ne jàpp nga ne euh, faatu jegeel na la bu la neexee sa alal nga sàkk ca may ko euh, lu la soob donte nag bul ko may mayu gënalee maanaam jox ko loo xam ne sa doomi bopp duñ ko am way ña la war a doon duñ ko am waaye mën nga koo jox lu la soob waaye it nga def ko rek ngir ak njekk def njekk ak teraanga ndax xam ne euh, lislaam boolewu ko ca way donn ya moo tax nag kaana nekk na daalika loolu fi kitaabillahi ci xam-xamu yàlla mastura di loo xam ne euh, lu ñu bindi la mu ne boo fàttalikul is axad naa ba ñu jàppee mina nabiyina ci yonent yi misaaqum seenu kóllëre wa min ka bokk nga ci yow Muhammad yàlla mi ngi fàttali yonent alayhi salaam ne ko yonent yi day euh, yonent yi ndax boo demee Cheikhul Xadim jàngal nañu ne ñoom anbiya u yeeg mursaloon yëpp boo doon lim seenu lim da nga ca da nga gis ñu bari lool faqakadun minal ulufi yaa rajul noonu la ko waxee woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag yàlla ne ko tudd naa ci ñaar fukk ak juróom ci alquran ñaar fukk ak juróom yi nag juróom yi ñoo ci gënte yaa ci jitu moo tax mu ne ko wa min ka yow bokk nga ci yow muhammad wa min nuuhin nuux wa ibrahim wa muusa wa xiisa ibnu maryama wa axas naa jàpp nañ minum ci moom misaaxan kóllëre xalisan guy aji dëgër gu dëgër goo xam ne jàpp nañ ko jàpp naa ko sama digganteeg ñoom nga ñëw ulul moo tax yonantu yi ci gën mooy ñaar fukk juróom yi nekk ci alquran ñaar fukk juróom yooyu ñi ci gën mooy juróom ñi juróom ñi ka ca gën mooy muhammad ibnu abdullah moo tax muhammad noox ibrahim muusa Isa mariam juróom ñi ñooy ulul asmi borom bi na lias alba dana laaj asaarixina way dëggu yi bi xan seen dëqim wala seen dëgg seen dëggu ga wa axada dana xadoo mooy dana dël lil kaafirina ñel way weddi azaban bugal aliman ba aji metti te tar borom bi subhaanahu wa taala nit ki julli ñi duñu gëm rek mu bàyyi leen noonu déedéet dana laaj ndax seen ngëm gi dëgg la te mooy dana leen wàcceel xeex ak xare ba xam seen xol dana ko nangu danañ mën a financer seen doole seen capital seen alal waaye way wedd yee nag ñu diggal leen mbugalum euh, ëllëg yowmal qiyaamatil akbar kon xam naa la ñuy taxaw ci foofu ba del siwaat incha allahu rabbi